na dañ cee mënta ñàkk a wax ñuy wax rek mais leer na ci wa waa Thiès yëpp réer na ci responsable yi nekk Thiès leer na ci presse bi nekk Thiès Youssou Touré dictature la bëgg indi Thiès te dictature bi du jàll nous sommes des enseignants de l'APR mais nekkuñu ay enseignants Youssou Touré Youssou Touré lu tax mu andi lii tey na day dindi suñu bureau teg fi beneen bureau c'est parce que dafay nekk di def ay sorti cuune bi mu commencé di def ay sorties cuune nag ñu rappeler ko à l'ordre ne nit boo bokkee ci gouvernement da ngay respecter solidarité gouvernementale mënoo nekk ci gouvernement bi ñu jox la ci ndomba tànk ku wax nga ne ko ñoos ku wax nga ne ko ñoos ku wax te ñi ngay wax yow la ñu def yow defoo dara Youssou Touré activisme rek lay def la raison dañ fee massifier ñun ne suñu slogan un enseignant un comité la suñu réseau bi 500 enseignants nous sommes représentés dans toutes les écoles de Thiès enseignant bu ne ñu ne la wutal comité ñi gën a tuuti le comité 20 lañ am. Mm. donc nous avons une base incontestable à Thiès. bi financement yi amee ñu déposé pour 1500 femmes jotuñu financement ñu ne fan lañ koy jooyee nañu dem ci suñ tutelle yu suture bi ñu demee xam nga lum ñu wax da ngeen a sopp ku leen massifié wala à la base yem leen ci seen réseau man activisme laay def moo ñu ko wax ñu fiy def activité fii chambre de commerce. ñu njëkk a def journée philosophique on avait deux mille cinq cent élèves alors que ñun suñuy moyen mille chaises la matoon ñu daal ne mille chaises yi doyul beneen bi ñuy defaat nañ sollicité Youssou Touré ne ko xanaa doo ñu jàppale ñu wut ay chaise pour suñu élèves yi bu ñu toog ndax am na ñoo xam ne dañoo dem ba seen kër di fa wuti banc mu ne man awma dara découvert laay def kon Youssou Touré coordonné wul réseau coordonné wul réseau ñun ñuy doxal réseau nag suñu elan bi ñuy demee ak activisme bi mu nekk dafa àndul te xam na ne ci ay tànkam la ñu nekk parce que ko bàyyi mu egg de du jàll su coordonné wul réseau dañ koy génn ci réseau bi ñun ñu coordonné ko. bureau bi ñu liir tey reconnaître ñu ko parce que je crois que un bureau dañ koy élire waaye duñ ko liir ñoom su li ñu ñëw def si tey mooy nooteel te nooteel daa jeex Sénégal. le réseau ñun dañ cee dugg parce que réseau des enseignants de l'APR la tudd de su tuddoon réseau des enseignants de Youssou duñ ci dugg parce que Youssou Touré n'est pas un modèle pour la société sénégalaise. merci. xoolal ah, je tiens à préciser aussi que tout dernièrement Youssou Touré yónni na fi secrétaire général OIS Moussa Diène ñëw ne nañ ko jàppale ci cadre syndical bi mu ñëwee ñu ne ko duñ la jàppale ci cadre syndical parce que réseau bi ñu seq ak yow ni ñu ko war a doxalee doxalee wu ko ba ñuy ñëw di seq ak yow ci syndicat bañ ko waxee loolu Moussa Diène nañ Youssou nee na même sax bu dee ay enseignants ñu ay femmes ménagères a ñëw sax nañu ñëw toog rek pour la forme ñu ne def nañ conférence Thiès ñu ne ko duñ ko def tricherie boobu mu bëgg nag te ñun cautionné wuñ ko moo tax mu ne nañu liquider créer réseau boo xam ne day def tricherie comme moom parce que ku xam Port Dia xam ne Port Dia réseau intéressé wu ko le réseau ne l'intéresse pas mm. ministre Augustin Tine moo ko ngemb ngemb ko pour ndax Augustin Tine je tiens à préciser que lu lëj ci ville bi moo ko lëjal il agit comme le microbe du tétanos moom microbe du tétanos nan lay def du bouger day toog sur place di sécréter venin muy détruire organisme bi moom noonu lay def par rapport à la ville ma nga fàndeen mais lu yàqu ci ville bi moo koy yàq bàyyiwul waa ville bi ñu ànd ndax au début moo ñu bëggoon a imposer port ba mu ñu ko imposé nous étions majoritaire ñu tapé sur la table ne du jàll biñ ne du jàll ñu continuer di liggéey suñu liggéey moo ñu légitimé mu dem ba moom mu ñëw fekk si ñu ndax def nañ activité Augustin toog def nañ activité martiale toog def nañ activité port toog kon ministre Augustin tin bu nekkoon ku sincère du cautionné lii te ku ne martial ne Augustin martial tarul doxal réseau moom mënul nekk fi président jox ko ndombal tànk mu jël ndombal tànk yëpp joxaat ko ay mbokkam nañu bàyyi ñu liggéey président la ñuy liggéeyal ndax réseau bi yi nga xam ne am na 500 membres am base fu soo ko sacrifier jàppale président mm-hmm. na bàyyi diviser bi muy diviser ville bi moom mënul am mieux rang bi mu am ci gouvernement bi mënul am mieux kon lu ko war mooy ñi nga xam ne dañuy œuvrer pour APR jëm ca kanam mu jàppale leen. nan laa koy misaalee mi nga mel ne nga yore sa ndaa di root keneen teg bosam di root ñun ñu ñëw ne nañ root sotti ci APR mu ne du ñu fi sotti kon APR du gaaw a feesle ñun APR defalaguñu dara. activités yi ñu def yëpp avec nos propres moyens lañ ko def dañuy bàyyi suñu kër reconnaître ñu ko xoolal lan la bëgg moom xam na ne réseau bee du dem de xam na ne réseau bee dem mais lan la bëgg que suñu bopp yu ñu nekk fi di dund deux réseau du dellu en arrière te duñ ko def on va continuer dans notre dynamique APR APR Augustin Tine moomu ko Youssou Touré moomu ko nous sommes déterminés à appuyer le président de la République et nous allons le mooy nit lii compter ci politique nit la ak xel am nañu nit ñi am nañ xel yi dañuy continuer di politique di jàppale président de la république. ci ndigalu coordonnateur national mu Youssou Touré euh, ne nañ ñëw waxtaan ak jàngalekat yi information yi ñu am ci fi ñu bëgg a jëm ci réseau des enseignants pour gën a massifier ko dëgëral ko. mu gën a jàppale parti bi ci échéance future yu ñu jëm élection législative élection présidentielle ak yooyu yëpp donc pour ñu ñëw taxaw ci waxtaan seeg jàngalekat yi ñu am ci matukaay biñ ci amoon depuis ci opposition bi ñu ñëw it la structure communal maanaam banqaas bi nga xam ne mooy jiite jàngalekat yi euh, te euh, nekk ci commune bi euh, département bi nag Martial John moo ko mës a jiite ñu ngi ko installé woon si septembre 2011 boobu ñu ngi ci opposition. léegi tey bi ñu waxtaanee ak jàngalekat yi parce que commencé euh, du tey rek lañ ko def dañu nekk di waxtaan ak ñoom ça ay diir ëpp na weer pour ñu xam ne jàngalekat bi ci commune bi la nekk dañuy xool ne ordre de service am na ko wala boog carte d'identité wala genre xeet yu mel noonu pour wane ne kii kat ci commune Thiès lay liggéeyee ba pare fa lay xëy fa la am service bu ko defee ñoom it ñu waxtaan seen biir ba déggoo ci dara. ñu ñëw tey doon valider bureau boobu bureau boobu nag Salif Dia moom moo ko jiite te Salif Dia kenn du ko présenté ci parti bi ndax yàgg na sonn taal motoom di wër koñoo koñ dëkkoo dëkk pour rek nit ñi ñëw bokk ci parti Macky Sall installé ay comité donc loolu tey ñu ngi leen si sant di leen gërëm ba ñu yombalee ni léegi nag am na nag ay xuusmaa ñàpp ay cappaacooli yuy nekk ci ginnaaw di wax ñooñu kenn faalewu leen rajo yi peut-être télé yi xëy na yéen leen di tàllal seen micro ñun nag dara taxul ñu ñëw def ko parce que bëgguñu woon léthargie continue fii ah, commune commune bi ku nekk rek taxaw jóg nodd ne wax ci turu jàngalekat yi commune bi déedéet tasaaroo boobu la ñuy bañ dañu bëgg nag tey mu am ordre ak discipline comme ni ñu ko président Macky Sall santé mais parti bi warul am Macky ni mu mel yaru tey du xaste du wax ju bon ànd ak sa kilifa mu doy la comme ni ñu Youssou Touré doyee lu mu wax ñu ne ànd nañ ci ak moom cent cent du tere nag ci biir néeg lépp lu ñu war a décider ñu ànd ko moom décider waaye lépp lu Youssou wax ci biti ñun engagé nañu képp ku nag dégg Youssou ngay ngay kat nga ne àndoo ci li mu wax wala àndoo ci lu muy def loolu yaa xam yaak say mbokk mais ñun ñoo Youssou ñoo ànd tey suba ba sagar di xeeñ ku mu naqadi nga dem yaa xam ku mu neexit nga ñëw continuer ànd ak ñun. tey jii pal bi ngeen pal euh, Salif Dia est-ce que euh, ci li suñu jàppee ñeneen ñi li ñuy wax de sorte bi nga xamante ni jéen defoon na ko fi di demander pour monsieur Youssou Touré mu rangé wu est-ce que du loolu moo waral tey jii. waaw xam nga xam nga euh, Samba Boy bu jóg rek wax rek am nga façon wax yoo xam ne rek ñu ñu presse bi tàllal le micro. wala yooyu wala boog ñu bàyyi la xel mais xam nga militant simple simple militant di wax bokkul ak un responsable xam nga tey Abou Sow bi nekk secrétaire administratif national du réseau des anciens bu waxoon sax ñu buñ ci bàyyi xel waaye militant simple mais na wax lu ko neex na wax xalaatam lay joxe mais nag tey Martial John rek moo fi sañoon taxaw wax si turu jàngalekatu Thiès te Martial kenn mësu ko xam ci wax ju ñàkk fayda wala bu teggine tey nag am na keneen kuñ ko taf tofal muy saalif Dia jiite commune bi moom de tey bu waxee ci turu jàngalekat yi dinañ xam ne wax na léegi nag yu suture ñun sunu kilifa la kilifa lañ ko def wax naa ko léegi duñ ne bu ñu moom ci biir néeg duñ wax ak moom waaye lépp lu mu wax ci biti ñun def ñu engagé te ànd nañ seeg ñoom te li ñu bëgg it mooy président Macky Sall gën a bàyyi xel jàngalekatu APR jàngalekatu APR yi ba ñuy nekk ci opposition ah liggéey bu am solo lañ doon def dans la mobilisation massification dans la formation des militants même biro de vote yi jàngalekat yi nga fa doon fekk. donc tey jàngalekat yi war nañ leen gën a dooleel ndax boo xoolee tey ci réseau des enseignants Youssou Touré rek lañ nommé amul doo dégg beneen ñun nommé te jàngalekat yi soxla nañ nekk sous-préfet adjoint sous-préfet sox soxla nañ nekk intendant. soxla leen leneen ak leneen ak leneen. waaw xam nga loolu ku mu neex nga organiser wu mais li am solo xam nga tey ku mu neexoon taxaw ne man maa jiite affaire mais xam nga yéen tey kenn du leen faale kenn du ko faale parce que ñëpp xam ne ne Macky Sall moo jiite APR te mooy président de la République mais ñëpp xam ne ne Youssou Touré moo jiite réseau national des anciens de l'APR te ñun moo ñu yónni donc lu ñu def rek. ci ndigalam lañ ko def ñeneen bu ñu defee leneen defuñ ko ci ndigal yu suture kon loolu amul njëriñ loolu seen nul et non avenu caduc waaw amul benn njëriñ mook ay xale ak ay ay euh, xale yu dajaloo di def seen ay affaire ñoo yem waaw wala book ay waa PDS waaw. ci mbirum Omar Sarr ci réseau bi xalaat. waaw ci mbirum Omar Sarr dañu ne Omar Sarr tëll ma rajax la def ndax yow dégg rek journal boo xam ne sax du senegal wax rek nga ñëw bëgg a jaaraat ci loolu wax lu gën a garaaw te journal boobu sax moom taxaw na wax ne moom mu ngi jéggalu euh, Lamine ci boppam ndey mbili taxaw na moom jéggalu ne Macky Sall gisu ko joxu ko alors donc moom tey euh, wax na loo xam ne dugal na boppam parce que ñoom liñ leen si jublu woon rek PDS mooy tas réew mi jaxase xelu nit ñi taal dëkk bi ndax Abdoulaye Daga fee euh, doomam rek moo ko intéressé mais loolu ñoom dañ ko war a xam léegi nag ñun suñu yoon nekku ci yoon dina def liggéeyam wala boog kamu tooñ muy président de la république mu jéggalu ko président nag moom mooy seet ndax bu ko jéggaloo dina ko jéggal wala du ko jéggal mais ñun moom li ñu wax rek mooy dëkk bi dafa am yoon te ñun politiquement PDS ñu ngi jàkkaarloog ñoom fu ñu bëgg rek ñu dem fa ak ñoom buñ leen ragaloon duñ leen fekk ci nguur jële leen ci ragaluñ leen tey ragaluñ leen ëllëg te tey Macky Sall di ko jàppale ba mu am ba mu def mandat am si jàmm ak salaam ba amaat deuxième mandat bu ko defee nag après lu am ñu xam ne mooy mooy loolu. c'est bon c'est bon Salif